réew yi ñu gën a jege tàmbalee ci Mauritanie gi ci des yëpp ba ci réew yu arab yi réew yu jullit ñeeg xataa réew yi sax occidentaux yi dañuy yebal seeni ndaw mu nekk ay corps diplomatique ñëw teew teew loolu day wane dayo bi màggal am te dayo bi màggal am dañuy tegtal rek barkeelu liggéeyub sëriñ ndax màggal gi ci jeexiti liggéeyub sëriñ bi la bokk sëñ Omar léegi bi ngay daaneel yaa ngi doon nettali yoonu géej gi ci waxi sëñ Musaa Ka Moussa Ka loolu mu wolofal gisaa u shakoor bu wolof bi mbindum sëñ Tuubaa la mu mu araabaloon gisaa u al atuf fi jawaabi Abdul Latif sëñ bee ko bindal boppam ci arab ndax tukki bi da koo ñoroon lool ngir li ci ne ba bi mu demee gànnaar bi nekkee gànnaar la ko benn naaru gànnaar bu ñuy wax Abdul Latif sàkk woon mu tënkal leen tukki bi loolu day am solo ndax su ko defuloon ëllëg ku ne mën ngaa jóge fu ne ne sëñ bi bu mu demee ci géej gi nangam wax say wax yu la neex sama classe bi dëgër fit loolu <laughs> waaye ginnaaw mbindum sëñ bee ngi fi moom ak mbindum mag ñi jëlee ci moom sëñ Mad Lamine Diop sëñ Bachirou ak ñi sëñ Bakki bi sax ñu mel na ñoom loola day daal doy delluwaay sëñ Moussa Ka ñëw nag booy jaan gisal sa kur bi da ngay gis ni ko ni mu ko yaatale nga xam ne léeg mu dugg sax foo xam ne sëñ bi dugg fa ndax sëñ bi da doon tënk rek màggal googu nag nga xam ne kon mooy eh, bisub cant xam ne wax ne kon lii su suñ jataay bi suñ xaarim day dugg ci biir cant googu rek ndax mi mi ngi gunge màggal gi donte cosaan li leeral nga ko ci sineblaay yooyu yéene ju rafet ji moo moo indi lii kon te cant rek buñ ko jëloon comme thème waxtaane ko mën na yaatu loolu waaye ñu xam ne cant li tax sëriñ bi tànn bisu saamina achar fukk ak juróom-ñett ci safar muy bisub tukki bi tàmbali tukki bi def ko muy bisub cant mooy dafa xam dayo bi nekk ci cant xam cant ci daraja ci ci ci maqaama yi gën a sori kawe ci ci maqaama yi gaa yu baax yi maanaa ci la bokk euh, imaam Xasaali wax na ko sëñ bi Bachir andiwaat na ko ci minan wax ne sant a shukru gi shukru gi tekki cant dafa bokk min ala maqaamaati saalikiina as-saalikiin nag mooy murid yi soobu di wut yàlla soobu yoon soobu yoonu yàlla di wut yàlla ñooy saadixi sëriñ bi ñi ñu mel na njëkkoon a ànd ak sëriñ bi sëriñ bi jaarale leen ci yoon woowee taalif masaalikul jinaan xam la ca yoon wa ba noppi maanaam pratiquer ko mettre ko en pratique ca Mbàkke Bawol ja ca Daaru Salaam ja ba ci Tuubaa ju njëkk ji ba bi ba bi mu leen formé bañ mel ni mu bëgg ñu mel ni mu taalif xoqal bu kaaw eh, ngir wane ñooña ñooy ñan moo tax xoqa xam naa loolu jàngati xasida yi maa ngi leen ci gën a eh, encouragé bu baax sànq ñu ngi koy waxtaane ci biir may wax ne sëñ bi message yi mu bëgg ñu xam ko ci moom ci xasida yi la ko def maa ngi wax sëñ Omar léegi muy sàkku ñaan ak bëgg gën a am am ndam ci xasida yi mu ne ko waa ndax yéen yéenay jàllale message sëriñ bi ci cérémonie officielle bi boo xoolee tey bi sëñ bas laataa wax wala bi laataa ubbi jotaay bi dañu woo Muntaxa Géey mu ñëw yëkkati ay bayit dana ko def ca maxaarijul xaruf ba dana ko defit ca la maanaam fasaaxa ba ndax sëñ bi arab la bind bindul wolof bindul français arab la bind bu ko defee boo ko ja bi ko bi ko mënta xëy di jàng danga xool ambassadeur yi nga xam ne ay arab lañu wala nda ña fa nekk te dégg arab ñu ngi diglu message sëriñ bi te message bi wax naa ko léegi si ne ma ko message brut la brut bi mooy loo xam ne dara rax <laughs> waaw ni ni sëñ bi aktubu naaqilan min allawxi wa min qalamihi wa fi xarufi lam amin xasida yi mu ñuy jox ñu di ko jàng noonu mu ñëwee noonu la jógee directement ci lawhul mahfuz non la ko toxale directement ci xalime gi bindi nekk laful mahfuz amul manam tasarruf tasarruf tasarruf moy bo borom xam-xam bi bu ñuy wax bu ñuy nettali wax jàmbur léeg-léeg ñu dem ba mu yàgg ñu xool nu ñuy jubbantee wax ja pour mu gën leen a arrangé ñu ne kat lii kat diwa ko wax waaye nag bi tasarruf ak coppax ndi ko am na ci loolu amul ci xaside yi sëñ bi ni ni mu ni mu rootee ci laful mahfuz rawatina xasida yu mujj yi xasida yu géej gi ak xasida yu mujj ginnaaw géej gi noonu la ko indee da koo toxal copie conforme amut amut amut amut amut euh, soppaxandiku wala dara moo tax euh, mu mooy tax moo tax mu fort xasida yi fort parce que ndigal la suñ mad laa bin day wax ne sànq yaa ngi jàng yaa ngi jàng ayesa naa joxe benn misaal ayesa ci lay nettali jaar-jaari tukki bi tukki bii nga xam ne moo waral màggal gi suñ mad laa bin dafay nettali ci alminaxul miskiye ne bi sëriñ bi di woy ayesa xam nga après géej gi la ko woy di nettali jaar-jaar yi hmm? waaye bi muy woy ba agsi ci wil gi nga xam ne fa la waxe yasara lil muna la daa Libreville wali man qaada li maa xaaba an kulli wali soo ko xoolee aay alxaan bi mu ko tënkee mooy inna ibaadi laysa laka alayhim sultan inna ibaadi bi bi mu ñëwee ci daal gi daal gi mooy daani rahimu inda daawume lahu bi ma ax na an tasawubi yaa gi topp yaa gi xëcc daal gi mooy yasara lil muna ji la daa wali man qaada li maa xaaba an kulli wali sëñ bi daa mel ne bi mu agsee foofu fekk da doon leeral ne sëñ bi buy bind xasida suñu borom moo naan ko bindal nangam bi sarihi oktub oktub suñu borom moo naan ko oktub bindal nangam bu bu bu amee lu mu war a sote ngir xikma wala ngir ndigal li loo xam daa war a ñëw après day sote loola suñu borom naa ko loolu da koy tëb bi muy bind ba agsi foofu dafa am lu mu waxante woon nag tubaab yi ci Libreville ci ci événement boobu ci xew-xew xew-xew boobu da ciy junj feeñu ahlu badar bi ñu ko booleek soldaar yi ci benn néeg ci gabon ci Libreville te ñuy tux ci kanamam di naan sàngara ci kanamam di gaanawaay ci ruum bi mu nekk moom ñoom ñu bokk benn néeg loolu dem ba di ko bëgg naqari nee na ma xalaat ne rax yi bëgg yi tonk sama ñaari mbagg yi moo tonk ci mbaggi nasaraan yi te ñoom li leen di lor moo may lor te feeg ñu ngi muñ lor jooju may itam war naa ko mën a muñ xoolal fa muy xool moom nee na ma daal koy muñ bàyyi mu jàll kon mi ngi jàngal muñ nee na muñ googu ma muñ yàlla terale ma benn suba teel ñu génn xëy di dem ci seen i camp d'entraînement lu badrinil kiram malaayka yu tedd yi nga xam ne ñoo xare woon ñoo ñoo wallu si woon sahaaba yi badar te te ñu àndoon ak sëriñ bi ci tukki bi bi mu génnee mbàkke baari ba dem ñibbisee tàggoowuñu moom ci ndigalal yàlla yàlla muri kiiraay yooyu tubaab yi jàkkaarloo soldaar yi jàkkaarloo ak malaayka yi ci wax suba teel booba fekk na fajar la waaye mi ngi tàmbali leer ñu gis leen tiit taxaw ba fajar ji set bët set ñu nëbbutuwaat kilifa tubaab bi nag wax wax ak bi di ko di ko làmbutu ne ko yow da nga am ay gaay yoo xam ne boo duggee ci mbir mu la jaaxal da leen di woo ngir ñu taxaw la sëñ bi moom mel ne ku xamul li ñuy wax ne ko ñi ngay wax ay jinne lañ wala ay nit mu ne ko bëgg wax nee na mu bàyyi noona ci biir waxtaan wa nag mu sàkku ci moom sëñ bi moom tubaab bi ne ko rikk waaye bul ko wax bu mu siiw daal di woo soldaar yi ne leen ku ci siiwal jërëjëf ku ko ci siiwal waxuma la dàq révoqué mais dama lay rey parce que defet la defet lay doon ci ñoom moo tax doo gis fenn ci archive yi fu koy bindee xalaatuñ ko xew-xewi gabon gi sax duñ ko bindee daanaka ci archive bind nañ ko mais duñ ko siiwal duñ ko génnee ñoom tubaab bi parce que seen defet la ci la sëñ bi bindee yestarajël mën a jooju la daal libéral yi comme nee nañ ko bul ko wax mën ne leen su ngeen ko waxut du ma ko wax kon kóllëre la gu mu dexalante ak ñoom te day sàmm kàddoom suñ borom bi ne ko nag da nga ko mas a waxi waaye jotagut moo tax bi muy bind xasida gi ba agsi foofu dafa tëb ñaari bayit yi ci topp da koo tëboon ca ca ca nusxa ca copie yu njëkk ya avant xew-xew bi may bëgg a nettali di am ci jaare bi mu ne yastara lil muna la daa libar wali man qaada li ma gaaba an kulli wali dafa sote lii qaada ahla badrin sote yaquudu li haysu akunu llahu dem directement ci saaqa li xeyrillahu fi maa yoon bàcc ñaari bayit yooyu mag ñi am nañ xasida ak ay yeesa di ko jàng te ñaari bayit yooyu ñëwul ci xasida gi ab diir ñibbisi na ba dem gànnaar ñu di ko jàng amu ci ba dem céen ñu di ko jàng amu ci ba ñëw njaareem ab diir ñi di ko jàng amu ci <laughs> moo tax léeg-léeg xasida nga daa waaw sëñ bi mu tënkee eh, xasida gi am na ci aw xaraf boo xam ñëwut ñëwul wala ñaari araf yoo xam ne ñëwul nga nga jàpp ne xëy na ka ko bind moo ko moo ko tëb wala déet fekk na mën naam am waaw xekk ma la li maanaam li xikmatin ma dafa am bi sëñ bi nekkee njaarim nag ba benn bis nag taalibe bu ñuy wax Sidi Sarr doon liggéey ci gaal yi dem Gabon mu demee Gabon dem Libreville di dox ba dajeeg benn soldaar bu fekk bu fekkee woon événement boobu muy waxtaan ak moom ñu waxtaan laaj ko fu mu jógee fu mu dëkk Sénégal nangam nangam ba tudd Cheikh Amadou Bamba mu ne ko da ngaa xam kooku mu ne ko mooy sama sëriñ bi ne ko la illa kooku day li li li lim ñu won fii yéeme na mu ne ko ah bu daal koy mu nettali nag xew-xew yi nag ba nettali ko nag feeñu ahlu badrin ko te moom ci ñoom la bokkoon sëñ benn wax ne su ngeen ko waxul duma ko wax Sidi Sarr daal di ñibbisi si njaareem yàkkamte naa ñëw ba gis sëñ bi ba nettali ko li li mu dégg foofu bi mu ñëwee nettali ko sëñ bi sëñ bi daan na ah, kon nag suñu borom ma ngi soog a jox ndigal tey ma wax nag maa xaaba an kulli jooju mooy lan ndax da koo lëmoon rek yàlla yombalal na ma fa liibar wiil la ma doon wut almuna la ma doon wut yàlla man moom mi nga xam ne moo ma jox fi Libreville gii secret boo xam ne ump na bépp wali kenn ku ma mas a jiitu ku mas a am lu mel noonu amul te mooy yàlla feeñal ay ñi gën a tedd ñi gën a baax ci mbindeefam yi mu feeñal leen ci réew moo xam ne ci booba jamono ci réew yi gën a lëndëm ëpp kéefër gën a néew lislaam gën a bari ay xiram yàlla feeñal ñu ñu tedde noona ci béréb bi lëndëm yooyu neen loolu maa ko mas a am maa raaba an kulli wali waaye da koo lëmoon bi ko sëñ saat nettalee mu ne sëñ Modou leen ma kii maanaam xas ay yes ñu ñu indi daal di bokk ci diggante diggante yaaw ibaadi gi yaa gi xëcc ci daal gi nga xam ne mooy yasara ji ak diggante siinug laysa ga laysa mooy saaqa ja laamug laysa ga ak yaa yaa ga topp ca ca laam ga mooy ñaari bayit yi nga xam ne da ko rotaloon diir bu yàgg boobu yëpp bindu ko kon suñu borom nag tey la bi soo ko jox ndigal danaa bind firi wax ji nga xam ne mooy maa xaba an kulli wali ji mooy lan li qaada ahla badrin al usuda man zaxzaxa al waashiya wal xasuuda yàlla wombatal na ma fi dëkk bii di Libreville ahlu badrin ñi nga xam ne ñooy gaynde ñoo demoon xare ji badar ba not noonu ya yàlla moom man mooy kan mooy ki nga xam ne moo moo dàq moo soril rambaajkat ba nga xam ne moo rabaaje ba ba géej gi am wala xasuuda ak ka iñaan lool ka ma iñaane lool ba dem ci tubaab yi wax leen ni leen damay dajale ay ngàndaay damay def nangam ak nangam pour jihaad yàlla yàlla moom yàlla mi ma dàqal ñooñu mooma wammatal ahlu badrin ci gabon googu daal ci teg na yaquudu lii xaysu akunu llahu tabshira laa ilaha illa allah fu ma mën a ne ci jéeri géej gi yàlla di ma wammatal mbégum laa ilaha illa allah suñu ma laa bi ne mbégum laa ilaha illa allah suñu tubaab bi mu koy firi dafa ne mooy وإن يردك بخير فلا راد لفضله موي القران لي واخنا يالا بولا بغي جوخ لو باخ تي نام لا ولا اضرار لا اله الا الله موي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو موي سن بروم بولا نا سوكو نامي تك دوما كو سي كين واي بو نامي تك كينين اب صفان كين كوكاي مانا وني كودل موم اوت yàlla fegal na ko adrar laa ilaha illallah waaye jox na ko mbégum laa ilaha illallah kon lii ci gis nga xasida yi ni ni ni ni ni ni ni mu ni mu ni mu ni mu toll ci sëriñ bi ak ak ni ci sëriñ bi liggéeyee nga xam ne lim ndax boo boo boo jàngee ay yesa te dégg arab te gëstu tuuti ci sëriñ bi da ngay daal di xam sëriñ bi ni mu bàyyee woon xel tukki bi rawatina dem gi dem gi fi ne dem gi la gën a jox importance ñibbisi gi tubaab bi moom safaan ba la mooy moom dem gi jox ko importance fi mu ne bi ñu koy yóbbu dañ koo maanaam patam patamee nëbbu ko parce que bëgguñu woon sax moom sëñ bi ci boppam sax mu xam fi mu jëm wala ak njabootam xam fi mu jëm sëñ bi dem na Gabon ñetti ati maayam jëkk yi kenn xamul ci moom dara bañ na génn àddina manifeste bato bi bi bi nga xam ne moo ko yóbbu Gabon muy la ville de Pernambouc mboo mboolem ñu wàcc ci bato bi am nañ ko ci ci archive yi le 2 octobre 1895 la bato bi agsi Libreville ñi ci wàcc ñëpp ci ay tubaab ak ci ay indigènes. bind nañ leen ba mu sëriñ bi te te moom ci la wàcc te pourtant bi muy ñibbisi la le 11 novembre ci manifeste Batullah ville de Massio bi ko andi bind nañ ci turam Ahmadou Bamba parce que dem gi dañ ko doon nëbbu dañ ko doon nëbbu bi nee na ñëw naa bokk naa kiri saalum saalum fekk ma ci gaal gi jox ma addi ne ma damaa bëgg nga dénk ma ndax damaa dégg ne dañ da nga fiy jaar jëm Gabon nee na ci laa xamee ne Gabon laa jëm ci laa dégg turu Gabon bi xam nga loolu métti na magum jëm mu toll noonu tedd maanaam teddee noonu ak lim lim lim représenté ci njabootam nga ne ko coppet ci biirum réewam ci biirum njabootam ne da nga koy sànki xanaa au moins sax nga ne ko béréb sàngam ngi jëm waaye dañ ko doon nëbbu bëgguñu woon kenn xam ci dara loolu moo tax sëñ bi waaye sëñ bi nag moom dem gi nag la gën a jox importance moo tax da ko taarixal ay yesa étape par étape tàmbalee jeewal ndar ah, ndakaaru kunaakiri dégg nga Garambassa Côte d'Ivoire muy fi ñuy wax Garambassam daaw mooy Bénin ex daaw mi ak si Libreville dem Mayumba ñëw làmbar na mu jeex boo ko jàngee yooyu rek lay lay lay te gis nga sëñ bi ni ci maanaam li li li li nga xam mooy euh, diqa arab li arab di wax diqa foog naa mooy maanaam pertinance ci ci mbindam mooy fi ne état bi ni mu toftaloo noonu la ko toftale xew-xew yi noonu la ko toftale te te te du jaawale turi dëkk yi dëkk bu ci nekk day tudd da koy tudd da koy tudd ni ko tubaab bi tudde na ko waa réew ma tudde yestaril mën naa la daa liibar wali ñun ñooy jàng limbar wali waaye sëñ moom loolu loolu bind ko bindul limbar wali déedéet liibar wali yestaralil mën naa la daal liibar wali liibar wili maa yomba da koo tudd mu leer galwaa mooy na mooy xeet way way dund foofa day xam ba xam tudd xeet yi du tudd mukk maanaam na moom ci ci ay bindam galwaa rek lay wax شق على الشيطان عند قلوى كوني خديم من كفاد البلوى دونك كو بغا خم كون تاريخ توكي بي اك جار جاري فاو نغي جانغ ايسا كون ميساج سين بي مو خن يين جانك تي خسد يين كوي فيكولي موتاخ متا باي خيل تي جانغين وي تي مخارج بي تي تي تي تي نحو بي لالا غديك جانك بو نيه بات لول ما شاء الله بات با نيه لول واخ جي نيه لول واي ليك ليك ريك تي تي مخارج داي ديس لالا غيت نحو بي ديس تي سين مايب ginnaaw bi ci ne ak leer gi ak xorom si ak sax lem gi sëñ Tuubaa day wax ne sama xasida sama mbind dafa saf lem lem bi xatti al muassal lay wax al muassal mooy lu ñu lemal mbind mu saf lem ci gis bu day wax wa asila kitaabati yàlla yàlla na nga def sama mbind mu saf lem na neex ba saf lem dàq lem ci ku koy jàng maam Thierno di ko dégg ba mu yàgg mu soppi ko liy daal képp ku dib murit booy déglu xasida dëgg-dëgg da ngay da mën ngaa dem ba soppi ko bi mu soppi ko sëñ bi bàyyi ko ba mu dal mu ne ko cerno daa mel ne li la soppi de mooy baatu kii yëkkati araf yi ak li nga forus lëf ci araf yi ci maanaam yi mu ne ko waaw mbakke daa mi lool te metti lool mu ne ko li nga xam ne moom nga ci xamul de mooy sa waa ji ko def fa mu ko doon defe kuñ fa yóbbu woon ku dul moom soo amee loo wax lu la fa jëlee lay doon waaye du wax lu mel nii li gën a yéeme ci xasida yi mooy loolu mooy xasida yi géej gi soo koy dafa ne ci digg Touba njaboot gi wër ko ñu koy xiimal warga di ko tegal café Touba ah xelam dal ndax rek jekku gi làkk bi waaye te te fekk na boobu man ci fitna ya gën a métti waaw xoolal asiru bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahida wa hawli nasara wal buxooru tamuur maa ngi koy waxtaane bët ki démb rek ci jumaa ji ci yonent bi wala ci alquran laa jaar rek di dox jóge ci sama boroom jëm ci sama borom assiru mooy mbootum géej gi nga xam ne ci la ci la jàngate moom ni mu gisee tukki bi ak ñeneen ñi ci ñi des sama classe gi xool état bi rek ni ñu gisee tukki bi ak tubaab bi ci boppam moom ni mu ni mu gisee tukki bi lépp ci bayit wu njëkk wi ci assiru la ko jàngale assiru ma al abraari mooy lecture boppam moom sëriñ bi mooy bi bi may dox doxuma doxub zahir bii ñu naan jóge na Mbàkke Baari jaar na fee jaar na fee kooku moom ci ay mais ci asiru moom damay wane ne sama dox min rabbi li rabbi waaw ah, damay bàyyi ko ci sama borom di jëm ci sama borom moo tax tiitul ab noon ragalul fa jëm yoonam nekkul ci xam koo ñàkk koo xam parce que xam na ne leer na ko ilmul yaqin wa xaqul yaqin ne boromam mi mu bàyyi mbàkke baari lay fekki gabam te boromam moom moo ko téyel ak ruuxam moo tax mu ne min rabbi li rabbi mu waxidan ji mooy wéetal gi muy wéetal yàlla nga xam ne maanaam jomi sëñ bi ak fitu sëriñ bi ak njàmbaar lépp li ko couleur ba tëye ko mooy tawxiid ji sànq maa ngi waxtaan ak yow ci biir salle bi man la booy jàng xasida géej gi li ëpp ci liñ ciy fekk mooy xasaidi tawxiid day wax ne tara xasaida tawxiidi li malikina shawahid al alxaqi man aatan li man ba booy jàng ba yem ci sama xasida tawxiid yi da ngay gis ne see seeday dëgg la day seede amuk yàlla ak nekkuk yàlla ba noppi di doon alagukaayu tubaab yi nga xam ne ñoom laa nekkaloon ci seen biir su ma saana bind laysal birru wala mu bind busra lana wala mu bind lillahi rabbi lisi qad jaadali bi ko daal bi nga xam ne sa sa sa Ibrahima jàngoon na ko at ci ginnaaw njàng mu neex <laughs> waaw maa ngi koy fàttaliku yooyu nga xam ne xasida yi la nga xam ne day jàkkaarloog la su ko masaan a jàng ba àggal bir bind ba àggal da koy da koy yëkkati day jóg taxaw moom sëñ bi de nii ngeen koy defee nii di ko rajas da koy jàng di bàgg di jaar ci biir soldaar yi xasida gi di jeexital ci ci soldaar yi mel ne ak ay jaas yu ñu leen di caw bi mu wéyee ci loolu ab diir mu gis ne tubaab yi dañuy faatu rek faatu gu gaaw di dee rek mu ne suñu borom seen dee gu gaaw gi lu ko waral mu ne ko li ko waral mooy sa xasaa taw tawhid yi moo moom lañ àttanul soo ko bàyyiwul tubaab bi yëpp dañuy faatu ba jeex ci mbas mu ne ah mu ne waaw ci yërmande ji ak cofeel gi mu ëmbal doomu aadama donte bi yëfar la sax sëñ tubaab du bëgg ab yëfar bëggut bëggut yëfar waaye du caage ne da koo bañ ngir jëmmu ji kéefër gi la bañ boo jàng les si bul day wax ne man bañ naa leen li féeg yéen a ngi bokkaale yàlla waaye su ngeen noppee bokkaale yàlla rek ba daal leen di bëgg am na geneen xas doo xam ne fi fii waxe ba naan fii kum tadarraatu mubxidan lakumu maa lam tatuubu lahu wallahu qad shahida waaw bañ naa leen fii ak tuubu leen waaye su ngeen tuubee rek ma bëgg leen te yàlla seede na lool bi ko yàlla waxee loolu mu ne ah kon nag naa bàyyi kon xasida yi tawxiid yi تلمحنا لو أنني لم أترك الكتابة مجاهدا بها زوي العتابة لمات بالوباء كل كافر إن لم يتوبوا لله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه رب المهلك الخد ناس ثم بايول ون بند تي جهاد تي خليمة كون كيب بيب يفر داني يفر ييب دي با جيخ تي مباس مو يالا دي واتي تي نيوم واي نيب غير جيم kon bind boobu jàpp naa ne bind buñ war a mën a jàngale suñu xarit xam naa daal wax wax suñ tubaab boo ci duggee rawatina tukki bi da ngay xabaabal te bëgguma jël temps jàngkat yi waaye daal sant nañ bu baax day dugg ci biir cant gi rek ñu xam ne daal jërëjëf euh, suñu xol sedd na xëy na waajulu ma ko woon sax waaye sëñ bi man awma ci sago xam naa ñun ñëpp su am ci sago waaye man moom laa bëgg damay wax sax ne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 هماني هلا ما هن ما أبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا